Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. alors euh, ñu ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi leen koy delloo di leen siyaar bu baax. di leen kontaane quoi. Mhm. père mu bëggoon sa analyse ci benn combat boo xamante ne dox nañ ko ba macha allah taxaw na euh, Vox Arena daal di ko taxawal muy diggante Franc bu parcelle. ak Tyson bu Tay Shinger ko. mais kooku kooku njarndeem la. man xaw ma sax ne. waaw naka la kii bi tudd box. am nañ xalaatu sax taxaw li ni mel. parce que kooku combat combat jànq la boo xam ne la ñaari mbër yëpp dans l'avenir mun nañ am lu ne ci làmb parce que ay techniciens lañu ay bërekat lañu ñoo xam ne tey lamb dafa am si ñoom yaakaar. franchement parler na bu fekkee ne moom taxaw na ah di ngeen gis combat boo xam ne ci saison bii ñuy duggi il fait partie des meilleurs combats ci saison bi nga xam ne moom lañ jëm Tyson 2 ak Franc ah kooku moom kooku allah. macha allah mais combat boobu est am na favori. non mais amul favori. amul favori amul favori boo xoolee li Franc mujjee bëree ci mbapat yi ak combat bi mujj a bëri ak li mu compétir année yi ñu génn nga gis tay jeune de aussi combat yi mujj a bëri moom gëj naa dégg mu ñël xale boobu parce que dafa dafa toll ni ñoom am na doole mën na bëri si kooku kooku kooku mbër la ay ndëkkoréel yooyu yëpp biñ fiy toll gis nga ñoo ñëpp moo leen daan ku ci nekk avec la manière ba si gis kon combat bu fekkee ne kañ moom taxaw na ah nañ jàpp ne kooku amateur yi boo leen defee micro trottoir foo leen dem li ma leen wax lañ leen wax ki xam ku xam làmb laa la wax nag boo boo boo tuddee affiche boobu rek. ñenn ñenn ñenn ñi foog ne euh, Tyson waru ko woon jël parce que moo ko raw ci làmb li mu liggéey booy bi liggéeyu ko ci làmb donc risque la ci moom mu jël ko looy. non bokk ma ñooñu gis-gis parce que aussi euh, combat la làmb la mënu fi toog di xaar kenn hmm. tey gars yi ne ci kaw yëpp mënuñu ko. loolu moom sama baat ci kaw gars yi na ci kaw mënuñu ko mais chance xëy na chance lañ ko dem bàyyi ko ci ginnaaw mais mënuñu ko léegi nag du toog di xaar kan lay xaar kan lay xaar amul amul lu muy xaar làmb ji amatul ko xaar kuñ kuñ ci dox sa combat logiquement da nga ko war a bëre un da lay may sax compétition mais toog fi di xaar ñoo xam ne duñ bëre ak yow da ngay gën a tardé da ngay bëre ñi bëgg yow ñi bëggul ak xëy na à la longue mu neex naqari leen dinañ bëre ak yow mais boo fi toogee ñooñu bëréewuñu ak yow bëréewoo fi foo jëm sa carrière day jeex man nangu naa li def nangu naa li mu def waaw père ñu lay remercier bu baax a baax waaw jërëjëf ko bokk bonne continuation Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.